suuf si ñu gën koo xamee ci joor dafa am ban te wow koŋ ñu fekk ko ci commune bu Patte d'Oie fi nga xam ne mbay mi am na fi solo loolu ci bile zone nga xam ne dafa jege géej gi climat bi baax na ngir ñu amal fi mbay ndox mi tamit nee na gàññ waaye suuf si dafa dese naat moo tax jëfandikoo engrais lu mënul ñàkk la day yéex day yéex di la lay indi engrais moo gën a gaaw engrais moo gën a gaaw engrais bi doo lay gisee si kii bi dafay gaawal dafay rafetal en même temps. même bi salade bii nii wala bee si ginnaaw waroon na ma engrais waaye par tellement lu mu seer benn mbuus du la doy nga jënd ba 3 ba 4 te 4 kilos def ko si benn rang di nga utiliser daal lu bëri daal moo moo la gën a kii 4 ba 5 kilos te loolu du doy. waaye njëgub engrais yow yee dafa yokk ba jéggi dayoo te loolee dafay am njeexital ci liggéey yi lay baykat. engrais bu njëkk ñu ko dem jëndee mooy bu weex bi araam bi mu dem jëndee ay mbuus 300 actuellement mu ba 700 sax. li ci ëpp calcium lay utiliser ak euh, magnésium ak NPK. ak ak ak kii phosphate phosphore plutôt yooyu moo gën cher ay 22 000. kilo am na boo xam ne kilo 1000 francs la 25 kilos mais 22000 la ko jaayee magnésium 22000 NPK 22000 calcium 22000. te moo ne jëriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi ak sàmm gi dal dinay yëgle niki aljuma ji weesu ne ci téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaar yi dañu koy wàññi ci njëgu engrais yi mu ñeel campagne agricole bu 2024 2025 waaye leneen la ñu fekk ci terrain bi ndax engrais boobee sax nag amul ci marché bi lañu fa fekk mooy ay semences. yu cher loolu ndax nag njëg yi mu ngi dalee 4000 francs jàpp 9000 francs CFA.